waaye déedéet équipe bi yëpp ni ñuy xëyee guddi dañuy xëyee bëccëg waaw toog ci centre de traitement yi bu daaru mar naan ak bi nekk fële ci Toscana yëpp mooy kër kat de dem fa yenn ko fanaan fa am élément yoo xam dañ fay fanaan kon vraiment ay jàmbaar ñu ngi leen di remercier bu baax looy sensibiliser population bi leen ñu ngi leen di wax ñu gën a taxaw ci mesures yi nga xam ne vraiment digle nañ ko mesures de prévention yi mesures barrières yi nga xam ne digle nañ ko nañ ci gën a taxaw port du masque nañ ci taxaw bu a baax a euh, di raxas seen ay loxo di respecter la distanciation sociale mais également di éviter di joxante ay loxo mais également moytu di ko rassemblement yi yooyu yëpp ñu leen ciy wax te ku ci gis ay signes yoo xam ni méngoo naag si ñu feebar bi comme ni ñu ko waxee sa yaram yi tàng wala sa bopp di métti wala sama kanam bi sotti su ko defee nga jëlee woote producteur ñu ngi ñëw jël seen ay matukaay vraiment ñu ngi leen di wax ni bu ñu jàppalantee ñun ñëpp di respecté mesure yooyu ci lu néew dinañ xeex kon nañ ci jàppalante ndax ku nekk tey bëgg nga delluwaat ci sa yitte yi nga nekkoon démb su ko defee kon loolu nag jàppalante bu mat sëkk moo koy moo ko moo ci wax ñu jàppalante bi mesure yooyu yëpp ñu ngi ci jëm kanam incha allah vraiment di remercier ñëpp di continuer. jërëjëf vraiment kon di la santaat rek ci sa disponibilité ndax bi ñu def affecté yàggul mais da nga yaatal jël nga ñëpp boole leen ñu ngi affecté mais xam nañ ni vraiment jàmbaar la kon ñu koy seetal say kilifa di la wax ni vraiment na seen xel dal merci beaucoup très voilà c'est ça waaw boo ko c'est ça c'est ça c'est ça loolu la. tey dañu ñëwoon fii encore ni ko daan defee rek. Mm-hmm. ànd ak service d'hygiène ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy def chaque jour. Euh, ci ndigalul euh, gouverneur de la région mais euh, le préfet Mbacké le le préfet Mbacké Mokhtar Diop comme ndigal yi mu joxoon ak sous préfet. Mansour Diallo ñu ànd tey ji ak euh, capitaine Keita ak élément service d'hygiène yi nga xam ne ñoo nekk ci bi yëpp collaboration avec euh, service yu nekk Mbacké ak bi nekk Touba defoon nañ marché Ocass démb tey ji ñu ngi ñëwaat marché Darou Khoudoss vraiment mën dif effectif bu doy sëkk sëkk sëkk sëkk mobiliser oto yi am yëpp ak mooy yi am pour ñu xeex li nga xam ne mooy Covid 19 ñu di ko wax corona. fii tey marché Darou Khoudoss mbooloo bari ñoo fi dugg waaye tey ji service d'hygiène def na fi liggéey bu am solo boo xam ni Euh, kenn mënu ko wax noonu tam lay toppee yeneen marché yi mel na ni bu ñu jógee fii dañuy dem marché man Marnaan vraiment di remercier capitaine bu baax baax di remercier tamit ministre bi di remercier la général bi nga xam ne. moo xam daya Touba ak a bi fi liggéey corona bi toll ak coono bi ci service d'hygiène mu yëkkati ay moyens joxe ko yu doy sëkk élément yi tam amuñu amuñu taxaw bu dégg bëccëg suba ngoon nii la ñuy nekk ci terrain bi ay 3 heures de matin 4 heures de matin présentement tey jii ñu ngi nii marché Daaru Xudoos andi fi pompe yi mag andi fi pompe yu am solo ñu désinfecté marché bi yëpp vraiment muy liggéey bu rafet rafet moo capté voilà waaw jërëjëf comme ni ñu ko waxee rek vraiment ñu euh, ngi ci liggéey bi tàmbali woon nañ ko di depuis démb ci marché Ocass kon dañ koy continuer nii di topp comme ko waxee woon marché yi ba yëpp daj incha allah euh, vraiment di ci remercier autorité yi nga xam ne jàpp ci ba lii am njëkk euh, ci gouverneur régional bi préfet bi vraiment jàppale nañ bu baax a baax ak suñu préfet également ñëpp jàpp nañ ci tax vraiment ñu mën taxawal lii ak ñeneen ñi nga xam ne ci ci doole marché yi ak yëpp vraiment donc euh, mu nekk lu rafet mu nekk lu war également pour mën a xeex li nga xam ne mooy jàngale Covid donc euh, lii dañ koy topp nii continuer ci marché bi nii marché yëpp daj incha allah su defee mu nekk vraiment suñu participation ci euh, liggéey bi rafet na agent yi aussi macha allah vraiment. seen fay euh, man moom dama leen di ñaanal parce que nekk nañ ñoo xam ni ils sont très très très déterminés bu dee volonté ak détermination rek am nañ ko en toute sincérité mm-hmm. parce que lii ñuy def nii ñu ngi koy def ci guddi gi mais bu nu xëyee dañuy demaat beneen liggéey mm-hmm. muy décontamination domicile yi ay cas yi nga xam ni dañ ko confirmé donc dañ ko war a jaar pompe ci kër yooyu bu ñu xëyee encore équipe bi ñuy demaat foofu maanaam liggéeyu guddi ak bëccëg la ñu